Je me présente Mamour Tchao, candidat à la mairie de Nonto Diobas et président de la coalition Ande Dekal Yakar. Coalition Ande Dekal Yakar, c'est une coalition qui regroupe plus de 15 partis et ces, 15, ces dizaines de partis représentent plus de 80% de l'électorat dans la commune de Nonto Diobas. Taï, nous sommes tous en tant que jeunes. Après toutes ces années de travail, nous avons trouvé que nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des jeunesse bi yëpp génn ñëwaat encore delloo mu njukkal pare na ma tey bis bi. non waxuma football si gànnu sax mais lii fi manqué dafa bëri ndax boo xoolee terrain bi il y a 3 man maa ko defar terrassé ko. et vraiment jeunesse bi amuñu loisir. leen seetaan ci secteur yu bëri. xam naa ni balaa may jooy terrain bi moom au niveau national gis nañ manquement yi am ci terrain yi ba nga xam ne mënuñu sax. représenter euh, suñu dëkk bu baax pour yenn match yi. jamono moom li ñu gën a wax lan moo gën a important. jëmbali nit ñu am source de revenu après c'est la santé aussi par santé bi tamit bëgg nañ gën a jàppale jeunesse bi côté éducation c'est des secteurs yoo xamante ne yëpp dañoo xaw dellu ginnaaw ci zone bi et am nañ ambition vraiment gën ko yëkkati yokk ko ci kanam ba nit yi gën gis seen bopp. bon ñun suñ coalition bi on s'entend très bien parce que ñun ñëpp a bokk vision ñoo bokk gis-gis et vraiment. camp d'en face ñoo ngi leen di ñaanal jàmm rek mais doyal nañ ci def nañ 12 ans changement bi amul su ñu demee ba taxaw man un jeune ñu ne que j'ai fait plus que le maire donc vraiment nañ leen ñaanal rek ñu nekk ci jàmm. nous nous sommes engagés tous ensemble. tous ces partis pour le développement de notre commune. Nous avons remarqué qu'il y a énormément de manquements dans la commune, du, côté de la santé, de l'éducation et de l'emploi des jeunes surtout. Parce qu'on a beaucoup de chômeurs ici dans, le, dans la commune projet de société développement pour tous ces groupes de personnes. Bon, en 2014, nous avons fait malgré tout 4 mois de campagne. Et après 4 mois de campagne, nous sommes arrivés deuxième devant Réumi au niveau des élections locales. Et entre 2014 et maintenant, il y a eu 7 ans. En 7 ans, on a énormément fait de sacrifices et de travail sur le terrain. Je pense qu'on est plus que prêt maintenant. Nous avons déjà tout écrit et on sait qu'il y aura un grand changement pour la commune, pour tout le monde.